ñu ngi leen di nuyu nuyowu lislaam di baatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi gannaaw ba ñu sante buur bi tabaaraka wa moom mu ñu mayaat kàttan ci mbaaxam ba ñu toogaat fii ñu ngi ko ciy santit bu baax a baax di ko ñaanit yàlla na ko dolli cant gi nag am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu yem alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ala kulli xaal di julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa di ko ñaanal yàlla dolli koy leer te yàlla taaf ñu seeni barke di ko ñaanal tamit yàlla sàmm njabootam defal ko ko defal ko képp ki xeeñ ci sunna di nuyu kilifa diine yépp ñu ngi leen di ziyaara bu baax kenn ku ci nekk ña nga fekk it fa nga nekk di la ziyaara di la ñaanal buur bi sàmm la sàmm sa njaboot di ziyaara suñu ustaaz bopp di ustaaz El Hadj ñu ngi lay nuyu bu baax nekk imam nekk boromi xam-xam ñu koy ziyaara bu baax tey nag ñu ñëwaat ci téere bi nga xam ni moom lañ doon waxtaane ci fan yii ni ñu génn da wax naa téere bi dafay jàngale ci wàllu tawxid waaye léeg-léeg nag mu dugg ci wàllu fiq mu ngi tolloon ci julli ndax wax nañu euh, gëm yàlla nga gëm yenent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye ngay taxawal julli léegi julli boobu nag du dangay ñëw rek ne allahu akbar waxoon nañu ndox bi nga xam ni moom ngay waajeele sa bopp pour dugg ci jaamu yàlla bi bokk na ci tamit ndox yooyu ñetti melo yu ñu indi woon muy ndox bu laab te mën a laabal ak ndox bu laab te mënta laabal ak ndox ba nga xam ni laabul mënta laabal kon yow ba nga soxla mooy ndox bu laab te mën a laabal léegi nag jullit bi gannaaw ba mu ràññee loolu léegi nag na waajal boppam ni muy waajalee boppam masalan soxla nga sa bopp di dem ci toilette bi xàmmee nga ndox ba nga war a yóbbu soo demee tamit ci toilette bi na fa def ab diir na nga fa yàgg dangay gis ku dugg léegi ci duus génnaat dangay gis ku ci dugg léegi génnaat fi jàkk ji di liqaamee ba fu ñuy kàbbare yow di fi dugg ci toilet bi def li ngay def jàpp génn fekk première raaka bi mbokk loolu dafay xaw a yéeme loolu sax góor ak ni ko yàlla bindee suy tuur ndox war naa bàyyi xel ci boppam si fekkee nit mënoo jonkon taxaw nga mën na nga wax say tànk tubéy li ngay sotti na ko sotti ci pax mi bu ko dóor ci dër bi muy ñëwaat bu ko dóor ci miir bi muy dellusiwaat ci yow waaye di saw di ko sotti ci miir bi dafa mel ni bal tenk si boo sànni dafay dellusiwaat ci yow soo tolloo ci foofu it bul yàqamti ndax nit suy saw day noyyi noyyi boobu noonu ngay noyyi day am lu mu téye ci biir soo bàyyiwaatee nooy bi am lu jàll lool noonu nag di téyewaat ci biir dafa war a génn kon du da dugg ci duus bi rek génn gannaaw ba nga la ngay sotti nga sotti ko ci pax li si fekkee ni tamit da ngay jonkan foofu tamit nañ ko bàyyi xel su ñu façon tuba yi xew léegi muy jiin séere yi soo ci jonko ne sa lii day naju sa naq li dafay naju kon lu waroon na génn lépp du génn parce que wet yi mooy tàncu su ko defee soo jógee taxaw rek da ngay sentir ne am na lu génn kon na nga wag ba nga sentir ni sa tubéy ji téyewul wet yi maanaam ni nga jonk ne ni say wet bankuwul say wet leemawul la fa nekk lépp dana mën a génn moom tamit nga jubli ci pax mi soo defee la ngay def ba pare bul jël sa loxo directement di ko teg ci sa cër nanga tooyal sa loxo na nga tooyal loxo bi ba mu tooy liñ ci jublu nag góor suy tuur ndox ñaare am na liquide bi génn maa génn ci sooy doog a tuur ndox mu jiitu ko walla ci biir mu génn wala ngu tuur ndox ba pare sentir ko moom la ñuy wax masi yu bokkul a teg man yu loolu nag ñaare su génnee tamit du waral cangaay da ngay raxasu rek kon nanga nga tooyal sa loxo ba mu tooy xepp na nga tooyal sa loxo ba mu tooy xepp soo paree nga doog a jàpp sa kanam nànk kanam gi nag suñ ko waxee jubluwuñ ci kanam gi waaw nga jàpp sa awra nànk raxas ferlu onk def ay déplacement tuuti ci biir toilette bi taxawaat raxas ko ba mu set si dee jigéen tamit wetam gi ñaari wet yi moo xaw a mel ni lu ko bës tuuti waaw ci naqaleeg yooyu raxas moom it mu ferlu waaye tuuru ndox rek daw génn bari na ci góor ñoo xamante ni soo xoolee caleçon yu ñuy sol mar yi ndax yàqamti moo leen koy yóbbee <clears throat> yàqamti moo leen koy yóbbee te foofu su laabulee rek foofu soo ci teeyul bu baax beneen ibaadaat booy bëgg a def rek day daal di jafe ndax euh, dafa am lu jiitu mooy kon faw nga làpp faw nga làpp soo defee nag noonu ba pare ba nga raxas sa loxo ba nga tooyal sa loxo raxas sa kanam nànk nit ku ci nekk nag moo gën a xam boppam mag ñi nañu pare sax jël ndox daal di wisu noonu ci seen kanamu tubéy ngir sax bañ après lay toqaat nànk di des ci tubéy li kon euh, jullit bi war na ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax mi ferlu jullit bi na ci bàyyi xel nekkul nag lu yomb gën kaa gàtt ci toilette bi war nga cee def cinq minutes ba six minutes sa portable bi rek soo ko téye mën nga cee def deux heures de temps yoo yëgul kon soo duggee ci toilette bi war ngaa mën a bàyyi sa xel euh, li ngay def nga ferluwaat bu baax a baax a baax a baax su ko defee nag nit ki su defee noonu ba pare ba yëg ni ni moom euh, ferlu na léegi nag mu doog ñëw ci njàpp li jàpp dafa am farata am sunna am lu ñu sopp ci biir jàpp li am loo xamante ni dañ koo sib ci biir njàpp li léegi nag di ngeen indi tey naka lañuy jàppoo incha allah ci suñu waxtaan yii di ñëw ñu dugg ci farata yi dugg ci sunna yi gannaaw nag ba nga waajale sa bopp nag ci sooy jàpp dangay ngay yéene soo yéenee njàpp li nga raxas sa loxo yii lu ko dale fii nga takk sa montre lii nga raxas ko ñetti yoon soo ko raxasee ñetti yoon nga gàllax jël sa baaraam dugal sa biir bëñ yi bomb ci biir ak ci biti yàbbi ba muy ñetti yoon nga sarax ndiku mooy sa baqan foofu nag danga gis ku def nii rek ñetti yoon kon yow ndox ba ngay dugal mooy génnaat moom ngay dugalaat dangay tànk def ci loxo bi benn nga dugal génne noonu nga koy jàppoo ba muy ñetti yoon si dee sëlmu ñu baal ñu dafay tàmbalee fii ci jébi nii ba ci karaw gi fii jël ci ñaari nopp yi kon dangay def nii waaw nga sëlmu bu baax a baax a baax a baax sëlmu bu baax yoon soo ci tolloo nga jël sa loxo fii nii ba ci conc bi nga def ko ñetti yoon biir ak biti nga jëlaat sa loxo bi ba fii nga def ko ñetti yoon nga jël ci ndox li def euh, say loxo nga wiccax masaa bopp bi fii ngay tàmbale nga daldi dem bu tegg sa loxo nag nga ñëwaat ba fii nga tàmbale woon benn yoon am na nag ñuy wàcc ci nopp li waaye soo paree ni nga jëlaat ndox li nga raxas sa biir nopp ci biir biir biir yëg yëpp ba muy ñetti yoon soo noppee nga jël sa tànku droite nga tàmbalee ci baaraam bu ndaw ba jëm ci baaraam bu mag bi soo noppee nga jël sa tànku gauche tàmbalee ci baaraam bu mag bi jëm ci baaraam bu ndaw bi yéeg ci kaw nii lañuy jàpp gannaaw ba nga xamee ndox li gannaaw ba nga feerloo léegi nag nga waajal sa bopp ci njàpp njàpp li wax naa la li ma wax ni ci biir am na farata am na sunna am na yu ñu sopp incha allah ci kàttanu yàlla ci yàlla àndee suñu waxtaan yii di ñëw di ngeen tudd farata yi tudd sunna yi di nuy ñëpp di ziyaaru ñëpp Euh, yéen ñi topp waxtaan bi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen wax ne tamit ngeen gën a abonné ci lu bees TV di nuyu technicien yéeg sama caméraman bi di maam Thierno ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara di ziyaara ñëpp li ci jub nag ci buur bi la tabaraka wa taala li ci amee njuumteet ci jaam bu doon wax la rek moo matul ngeen baal ñu xaq asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu